bismil ilaahi ci barkeb yàlla ay maqaama yàlla bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu rang bi moom météo na trop dangay génn jumaa ji fu sore sore sore si biti biti la rang bi nekkoon waaye boo fekkee ñëpp di rang boo amee xel da ngaa topp seen ginnaaw rek loolu moo war fële ci kaw lañu rangee dañoo war a nga ci kaw wax dëgg yàlla jànkoonte ak jafe-jafe yu comme képp bépp pèlerin niñ koy jànkoonte rek ñu defee ko noonu. rang nañ ba yegg ñëw nañu jaayante nañu ak sëñ Fallou waaw rang nañ ba yegg dem nañ ca këram ga toppaat nañu yoon wi rang ba yegg ndax loolu rek moo ñu fi indi. faaw ngay jaayante si yoon bi jaayante si yoon bi nag weesuwul ko nga fekk nit ñi di rang. nga dem fu xool fu rang ba tàmbalee nga dem range ji fa gune yi fu leen teg rek dañ faa war a teg ñun màgget te xam ne gune yi ñu yaru lan bu ne jaar leen fi rek na leen fi jaar kon jàmm rek kay am fii képp ku ñëw ko ne da ngaa ñëw di sàkku si ngërëm vraiment yaakaar nag nit buy sàkku ngërëm warul ñëw maanaam wut loo xam si nii daf koy gàkkal wala lu koy dugal ci yenn yi dafay ñëw def yëfi taalibe ziar bu ko defee suñu borom nangu lépp di barke Serigne Fallou Mbacké nga xamante ni amoon nañu yéene ñëw te xëy na dañoo am gàllankoor fa ñu toll di ñaan yàlla na leen yàlla nangul seen ñaan ña nga xamante ne tamit da nga dañoo bëggoon a ñëw te wàññeeku yàlla na suuf oyofal suuf guy ci seen kaw yàlla oyofal suuf guy ci seen kaw di ñaan yàlla suñu borom mi nga xam si ni moom moom mooy kattanal ñëpp mu indi taalibe yëpp ci jàmm delluñu ci jàmm ak salaam képp ku ñëw Touba fekk fi jàmm boo ñibbee sa kër fekk fa jàmm ak salaam lépp lu fi jullit ñaar ci Sénégal gépp ak ci àdduna bépp yàlla dafa jàmm bi jaay Nabil Moustapha ku fi bëgg dara di nga nangoo son boo sonee damaa foog ne di nga fi jëriñoo lépp luñ fi ñaan ah, yàlla na ko sëñ Fallou nangu amiin bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi yàlla dolli noo ay